Moussa Sow Teuss euh, nekk doomu HLM euh, juddoo HLM defee lépp enfance am HLM euh, ma ñëwoon nak avec plaisir du nuyu téléspectateur u HLM Vision si liggéey bu rafet bi ñuy liggéey si HLM du saytu don sentinelle u HLM déjà bu si jitu dañuy sante yalla bu et avant tout du féliciter ci wa HLM si confiance buñu am ci sen doom muy Moussa Sow Teuss mi bi ñu investir woon quatrième sur la liste département euh, am si nak du meune regret wante le fait que de participer rek dañuy alhamdoulillah alhamdulilahi rabbil alamin parce que yombul won mu nekkoon une première dans l'histoire politique doomu HLM jité ben liste que ñuy wax président Cheikh Alassane Sène mu amaat benen doomu HLM bi wax Abdourahmane Diaw ñu gën ko xamee texte nekkoon ci liste nationale bi man ñu ma ci liste département bi parce que les dés c'était déjà jeté wan dama doomu HLM la doomu HLM la HLM am maire euh, député amoon yaqim am yaakaar wante yàlla noppi na démb tey soog ñëw participer nañ nag avec dignité ak honneur ba yàlla def lu gën ñu génn si avec la tête haute yombul woon nag man personnellement sama côté parce que les moyens c'était pas réunis wante expérience loo ko jëndee rek jar na ko parce que donna ci si plénipotentiaire wu xam range politicien ni ñuy parce que ma donne fi représenter fo natangi sous préfecture de Grand Dakar géré woon six communes war a ko silone di dugu du génn pour mën am ben expérience politique wante dugg naa HLM fu mu war pour au moins ñom ñu xam les enjeux enjeu bobu nak mo ñu dem permettre ñu am nu ñuy taxawé ëlëk ci bir Sénégal ak ci bir HLM parce que japp naa ne doomu HLM su nekké ci liste nekk ci département bi doon député té demagul assemblée wa HLM dañ ko wara a dolel ko dolel ko bobu nak moy tax ëllëg ñu am benn base de données bo xamné ne dañuy am légitimité taxaw né HLM ñun ñoko mom parce que au début ay foo la ko jàppe woon caaxaan je salue au passage le maire des HLM Moustapha Diop ba ma jàkkaarlook moom mu ne ma honneur la doomu HLM ñu dugal si liste ma jàkkaarlook keneen ku ñuy wax Cheikh mbay président mouvement sa dëgg-dëgg mu delloo waat ma loolo si laa xam ne nag toogaay jeex na wante volonté ak bëgg nit ki ak choix am dañ koy nangul nit ñu gëm tës Moussa Sow mi ba mën ko sànni loxo fu waaye nekk maa lay tàllal loxo di la jaajëfal ñu ko deful am nañ seen raison parce que voté na ño xamné xamuñu ko xamuñu leen damay respecter seen choix nangul leen loolu ñu def parce que dans la vie faut pas être un suivi bla ngay dàq mu dem si biir nga dàq mu dugg ci biir parce que japp nañ ne ñun doomu HLM yi yelloo nañ am député wante nek ne HLM way japp nañ ne ñun yelloo ñu am député dañ japp ne ñeneen yenen quartier ño ñoo am député te HLM façon bu nek, kilifa bu nek, bla nga xam nga genn nga xamne HLM ño diriger ño yor Senegal man dañuy santat yalla rek nangul len lol du wax alhamdullahi rabin alamin alhamdullahi rabin alamin ba au soir du 31 juillet yalla mayena dañuy nangou dogal bi jugaat defuruwaat parce que dem nañ ba tok ne dañu bëgg arrêter waaye nekk na ñun moomatuñu suñu bopp ku si nekk nag ñi ngi may woo ñi ngi may encouragé ñi ngi may defal nii waaye am na loo xam ne maa ko moomal sama bopp surtout encore ñoo xam ne ñoom laay nekkal sur le terrain mooy les gens de l'ombre su ma ko waxee ñoom dinañ xam fa lay waxee ñoo xam ne ñoo nekk ginnaaw tës du ko dooleel gëm ko te yàlla tax au contraire nous jël sen alal temps jël euh, mettre à la disposition de tous. kon ñu mel non nak duñu bëgg ma tuddu sen man dafa suñu occasion yu du ñaanal ak kilifa yi ak suñu yaay yi ak yi yi la famille Diaw wa ma famille sama seen taxawaay yu ñuy def pour rek mu baax maa leen di sant di leen jaajëfal di leen remercier dañuy dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin te et c'est l'occasion ñu rendre hommage koo xam ne sonnoon na si lool ki ñuy wax Moubarak mënumaa def te mënuma ko si jaajëfal di ñaan yàlla fu mu nekk gënal ko fu mu jugee Moubarak Njaay la santoon dëkkoon HM6 si booru terrain bi man ak ku wax Mohamed Ningu, ak waa chom bi njaay ay ñoo yàgg terrain bi Cheikh def wax ni xam on a tenu des réunions pour veiller depuis 2010 2007 doomu HLM mais HLM 5 HLM 6 nous ngi veillé pour terrain bi ñu bañ si def dara Ali Diouf ñëw na ba dem def fi dara monsieur le maire Pape Seck ñëw fi premier action bu njëkk def booru HLM 6 côté nous sommes Mohamed ñi ngi coach ku may tudd Moubarak

moo ñu yóbbee woon lii parce que terrain bi so demee ci titre foncier bi ñu ko attribuer ASC hm 5 na ci def 6 hm 5 ñay bobu boobu amul gul woon hm 5 moo fa dem entraîné ba yalla def ñun hm 5 sacrifié au détriment de ñep mu mën doon

gis naa ay nit wax ne Macky Sall moo leen ko jox Macky Sall moo tax ñu mën a def stade bi ah jaaxal na ma de parce que boobu jëluñu benn dirigeant ASC HLM loolu ñaari ASC yi nañ jël HLM cinq Moussa Sow mii tës Ndiaga soo demee Nimzat Cheikh bu Mbodj ak Cheikh bu Sagna ñooñu képp ñun ñeent ñooñu nañ def enquête administrative boobu

A.S.H.M, xam la la si am meuna a recevoir ce terrain bi wala mu pour entraîner ces benen partie bi lolu meun nañ ko pour la gestion ou terrain bi collectif non à la cantonisation ba timing mi date depuis 2019 collectif veille pour SAB depuis 2020 HM5 HM6 cirque parce que suñu nous bokku la là, nous ak ak nañu premier protocole bi ñëkkon am dañ si Cité Port le maire Moussa Diop war rectifier le tir impliqué si tous les acteurs sportive même les écoles de football parce que y a droit de regard am nañ si man encore ñoom lu ñuy njëkkante ASC HLM laa bëgg xam c'est pas le maire ou bien l'État ñoom ñooy homologué terrain pour mu mën a commencer entraîne c'est la fédération ou bien CAF ou bien FIFA man n'est pas pareegul kon pourquoi ñuy précipiter bëgg ya lu dal ñaar du dal te association sportive wax culturelle kon pourquoi nous, ñu koy politiser ñu wax ay recevoir ne leen lu ñëpp nañu éviter yenn yi suñu wax du neex parce que 2007 à nos jours nous dem veillé avenants yi nag bari trop lu wër si alentour terrain pour ay cantines, bëgg ko caxat amul luñu waxul amul luñu déggul kenn def fa benn cantine jusqu'à nos jours Socabeg mënuñu tarrel à cause de l'ASC HLM loo xam ne depuis 2007 waroon nañu ko livrer livrer livrer wuñu ko tey ñu bëgg ñëw taxaw ASC HLM pour lan. estat communal la du stade kenn stade pour jeunesse HLM waa la wante bi ñooñu ma la wax ñoo ko war a composé mi ASC HLM 5 Nimzat Cité Port Angoule Mousse Yéeli Taare Baye Gaynde ASC HLM soog a ñëw mairie bi soog a ñëw ñun dañu fekkee démb tey soog a ñëw yu ñuy def nag ñeneen nañ koy def ñun ñii on les attend pied ferme je ne suis plus membre de ASC HLM 5 bokkuma comité directeur waan je suis le sentinelle des HLM dañu fekkee ay këyit yéré ay documents nek bir HLM di déroulé xam bu baax lu ñuy wax nak xam fu baax fu ñu tek suñu tank wante nous interpellons le maire mu tok togal tous les acteurs yu séq mbirum terrain bi ñun nak ñu ngi veillé on n'a pas besoin d'assister wante yalla def na nag ñu ngi xol fu muy mujjé parce que nit ki doo ko jiital du ko faqatal la maire nag yow la fi yàlla teg dañ koy nangu wante lu jëm ci mbirum stade bi doxalal yoon bul dox ndax affaire sama parti la wala sama coalition la wala lu neex waa si HLM bi xoolal lu neex waa HLM lool laa am lu ñu la ci lu ñu ciy wax ci point boobu waa HLM yépp di leen jaajëfal di ñaan yàlla HLM nekk si HLM yi gën si HLM yi HLM nag lu ko tàrreel dama koy wax fal par parlo bi moo ñu tàrreel bëggante wuñu jàpp nañ ne doomu HLM si lu mu nekk rek keneen war ko si fekk si man de lépp lu doomu HLM du def man personnellement nga koy def te yàlla tax pour HLM man doon naa sa esclave wante lépp lu waay di def pour teg ko si doomu HLM man jaay naa la sama bakken bi parce que kenn moomu ma kenn yorul sama kër yàlla mi ngi may suturaal yàlla mu ngi may dimbali bokk naa si ñuy doxal biir HLM wante mënumaa def te duma remercier ñii muy waa HLM ma commune su ma ko tuddee teg naa ko si loxo Mambi Diaw le coordonnateur mënumaa def tuma gërëm sama jabar muy dégg lu nekk te bàyyiwul ak sama famille ak mes amis d'enfance mes amis d'enfance awma seen fay parce que jàpp nañ lépp lu war lu baax pour HLM man maa ko yelloo doo leen gis nag wante yàlla def na que ñu ngi biir HLM mo nek sen xol ñooñu mënuma len fay ak ñuy bëggee tës te yàlla tax ñu leen di ñu may ñaanal du sonn si man du xeex ndax man maa leen di sant du leen gërëm HLM nag benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar dama bëgg gaay delloo si waat xel yi xam ne que pour mu dem c'est nous dans nous ñooy jàppalante waxante dëgg réalité bu quartier bu nekk nag dafa am nu muy doxale wante yàlla dimbali nu ma quartier yëpp jaar naa fa dëkk fa c'est pas donné à n'importe qui lépp lu HLM war a yelloo rek fekk na duggul nañ ko fa jaar nañ fa ASC HLM bii suñuy wax waxu palais ñun HLM 5 dugal nañ ko palais te coow jibul 2015 ba ñuy final ñaari tel yi filmé wuñu ko photo wuñu ko kon bu fi kenn gondi kenn bu fi kenn am looy teg nañu teg pour intérêt HLM maanaam pas intérêt bande de copains man nag bokk ma benn ASC HLM laa bokk te su ma jugee dafa am ñuy jug ànd ak man wante si dëgg nañu ànd ak man je tenais personnellement à remercier à tout le monde sama waa koñ samay xarit samay jigéen ñu may bégee ak ñëpp rek waaw ku lim juum merci encore HLM Vision liggéey bi rafet na di ñaan yàlla tele bi gën a yaatu Moussa Sy yàlla amna fay yalla na la yàlla fay yalla taxawu la gis nañ liggey bi ngay liggey si si HLM taxaway bi yenen ak yenen yalla na si top vraiment big up grand jamu naa si yow